asalaamaaleykum àdduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen di nuyu borom yàlla yi kese barke wi yomal xiyaamal akbar damay laajte nag damaa gis temps yi internet beeg actualité beeg bëm bëm jéeg yaa awa rasul yaa awa jéey lan mooy problème bi ca ngénteel ka nga xam ni mooy ngénteel oustaz Modou Fall mu baax mi yaa awa jéey dafa nekk kenn xam nga kan moo juum ka doon yi moo jottali rek kooku rek moo indi problème yi waaye du dara daa juum rek barke yombal xiyaamal akbar lu baax rek la ci jublu da la doon tàggo ba la yaa awa rasul mi dafa baax nga ni ku déedéet man yaa awa jéey wax nga dëgg parasanté nga sa bopp ndax doomu aadama ki lay jottali su la jiw su juumee nee ko man yaa awa jéey mais yàlla na ja yàlla na jàmm yàgg ci réew Sénégal ñun ni neen la barke yombal xiyaam waa bi ñu kum ci yéen ñaar nu xurujukum guppoo gupp gupp faada gupp lamat gupp lëfër lëfër yaawa rusul yaawa jéy am leen jàmm yéen ku leen laal man mbëkk faal ma ñaf ko mbëkk ba mu wàcc wasalaam